oui il y en a qui disent ça. mais mais la def. Hmm. amul mot. parce que si vous dire ak nit ba ngeen ñu investir le bi bu hmm. mais investir ko ci mu lan jaral Fall lan jaral Fall hmm. question <laughs> ci comme réponse mais du la koy wax. en tout cas ñu ne ay liste dañ ko fay invalider ñoom ñu koy jiiñante toog nañ fi tamit ñu ne pdf le plan Déthié Fall moo xamante ni moo defoon l'intercoalition yeewi wàllu yeewi wàllu ñu ne plan plan la woon nu mu mujjee waa wàllu ànd ak waa waa APR te député yi ñu am li len ko may moy intercoalition mhm. donc ce n'est c'est pas le moment mais dans tous les cas dès Fall bu démé ba poser acte bu mu poser amna lo mu ah, euh, dans sa tête jusqu'à présent communiqué mhm. man nak gëmuma ay diw mo wax ak man. Mhm. ay marabu ay euh, acteurs politiques ay ñeneen ak souvent. Mm-hmm. acteur politiques yi dañ koy jël. tout simplement comme prétexte pour mën a justifier ak. pas yi nga xamante ne nii posé nañu kon ñoo ko déggandoo muy maam góor biram wàcce li mu wax ci li nga xamante ne Déthié Fall def na ci ñenn rek ci kontaan muy waa Pastef lenn la ñu mën a jàpp dafa trahir waa sàmm sa kàddu te trahison am na lu ci yàlla wax am na lu ci lislaam wax góor warta wor moroomu góoram donc tey waa Pastef suñ ci kontaanee maanaam dañu kontaan ci li nga xamante ne mooy warkat donc nañu jàpp ni que ñoom ñoo ci kontaan mais li Déthié Fall la mu def a tuddee lu dul trahison mais moom lu muy laaj ki nga xamante ni investir nañ la su doon sax ñu ko ci listu sàmm sa kàddu ñi ne dafa mer dem na seeti mais yi ñu investir la cinquième position nga dem fekk ji fi nga xamante ne kenn investirul defuñu ci dara lan la ñu jii ba mu mën a bàyyi li nga xamante ne war kàddoom foofu ca sàmm sa kàddu ko mën a dig boo xamante ne tey war na ko jaaxal mais du dara lu dul obsession su dee ministre la jaru ko su dee directeur général jaru ko su dee PCA jaru ko ndaxte loolu su ko jaralee tey mu war ñi nga xamante ay ñooñam lañu kon sénégalais yi dañuy xam ne ko bu kenn porté espoir am ci Déthié Fall ndaxte saa yu gisee intérêt donc dina waraat askanu Sénégal pour def nga xamante mooy maam Biram Wàcc loolu la gis ci li nga xamante daal Déthié Fall def na ko ginnaaw woor bi nga xamante def na ko ñi nga xamante mooy coalition sàmm sa kàddu ginnaaw bu mu joxee kàddoom ñu dem ba nga xamante élection yi ñi ngi waaj tàmbali si la daal di wor delluwaat ci li nga xamante ne mooy Pastef bi nga xamante amul benn intérêt boo xamante mën na am dara lu loolu ñu dig ko poste wala ñu dig ko xaalis est-ce ngir ñu indi ko ci Sénégal diggante exécutif ak li nga xamante ne mooy législatif dafa mel ni kii di Déthié Fall dafa dem dooleel li nga xamante ne mooy dictature bi nga xamante ne ñu ngi koy teg ci kaw Sénégalais kon Sénégalais nañ jàpp ni acte bu Déthié Fall def dara du dara lu acte de trahison.